waaw salaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di nuy ñu ngi leen di ziar bon ñu ñëw ci benn cri de waaw ci benn cri dëkkër ndaxte soxna sii di Ndeye Khady Ndiaye yéen a ngi yàq àdduna waaw ndax euh, man Sénégal gisatuma njëriñu droits de l'homme yi gisatuma njëriñu mouvement féministe yi nga xamante ne dañ fi nekk di jàppale jigéen ñi nekk yee jafe-jafe ndax jàpp naa ni ci deux mille vingt et un bu dee jigéen bi ñu war a jàppale kan la mooy Ndeye Khady Ndiaye bu dee jigéen bi ñu war a taxawu kan mooy Ndeye Khady dee jigéen bi ñu war a naw sargal ko mooy Ndeye Khady Ndiaye ndax mënoon naa def ni yeneen moroomi jigéenam jaay ngorom ndax lan alalu àdduna waaye yàlla dafa dogal na peut-être ñun nit yi ñu ko sékkal dañoo ñàkk fayda war ngeen am leneen lu ngeen tal wala war ngeen am leneen lu ngeen mën a liggéey ci réew mi lu dul topp askor di ko xoxatal topp asgar bu mu sës di ko naqaral topp asgor bu mu sës bëgg a yàq addunaam kon jot na sénégalais yi jàppale Ndeye Khady Ndiaye nan lañ ko war a jàppalee nag loolu dañ ci war a ànd ak mouvement droit de l'hommiste yi ak mouvement féministe yi nga xamante ne dañ fi nekk di taxawu jigéen yi nga xamante ne dañ nekk ay jafe-jafe ndax tey jàpp naa ni tey bu fekkente ni dañuy xeex injustice mooy injustice bii ñu bëgg a teg ci kaw Ndeye Khady Ndiaye di ko xoqatal di ko tiital di ko di ko teg ay fitna yu dul jeex te mu yor njabootam ndax lan benn but rek lañ bëggoon maanaam mu ànd ci seen complot pour ñu sànq doomu aadama kon nag man li ma ciy wax mooy ndax ñun mënuñu lu dul wax waaw mënuñu tamit lu dul jàppale Ndeye Khady Ndiaye jusqu'à un certain point daa am foo xam ne foofu la ñu war am mais man ma ciy dolli di def appel famille Ndeye Khady Ndiaye génn leen ngeen taxawu xale bi génn leen ngeen jàppale xale bi Ndeye Khady Ndiaye conseil bi ma lay jox mooy maanaam wax ci Pape Alé Niang rek doyul defal conférence de presse woo média bi woo droit de l'homme yi woo mouvement féministe yi nga def conférence de presse bu mag wax naqar yi ngay dund yëpp bu ko defee àdduna bi yëpp xam ko loolu mooy dëgg ndaxte Ndeye Khady Ndiaye lépp lu ko dal tey ak lépp lu ko dal suba ñi nga xamante ni seen tur mi ci dossier complot bi ñooñu ñoo ko koy teg kon ñàkk ngeen fayda dem leen ngeen liggéey yi am na leneen loo xamante ni war ngeen ko mën a jëriñ réew mi dul topp ay góor ay citoyen maanaam di leen xoxatal waaw kon maa ngi woo képp koo xamante ni xaritu Ndeye Khady Ndiaye nga mbokku Ndeye Khady Ndiaye nga famille Ndeye Khady Ndiaye nga muy de sang muy muy muy famille boo xamante ni tamit famille bu sori la képp koo xamante ne rek mbokk nga rek maa ngi lay ñaan ngeen soutenir Ndeye Khady Ndiaye jàppale ko fexe ba mu organiser conférence de presse toog jëkkëram toog ay mbokkam toog ñëpp ngeen yuuxu seen cri de cœur loolu mooy dëgg yow jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye maa ngi lay ñaan nga jël les choses en main bañ a bàyyi Ndeye Khady Ndiaye kese muy daw ci Pape Alé Niang di wax wol say mbokk en tant que góor woo ñi nga xamante ni ñëpp am nga ak ñoom jàmm organiser conférence de presse woo ci droit de l'homme yi nga xamante ni dëgg moo leen tax a jóg waxuma nag droit de l'homme yi nga xamante ni ay naafeq lañ dañuy màtt ci kaw di ëf di suuf woo yi nga xamante ni dëgg moo leen tax a jóg waxuma mouvement féministe yi nga xamante ne dañuy ay naafeq lañ dañuy màtt ci kaw di ëf ci suuf kon gars nan leen fexe taxaw Ndeye Khady mii ndax sonn na te ñiy woote ay cagnotte ci turam ngir yàlla yonent bi jëmmi Serigne Touba cagnotte yi ngeen woote ci turam fexe leen ba jox ko ko ndax te sonn na te soxla na ndimbal te maa ngi woo Sénégal képp ku koy mën a dimbali te yàlla tax na nga koy def te yàlla tax baa na jërë ngeen jëf.